إنني وجل وعاجز وذليل أنت معتمدي وشد فقري ولا آوي إلى أحد إني أخو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي وأبدلن نحاسي يا كريم به برا وروح بذكراه على كبدي يا أهمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد أخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله تعالى سنتي الله بنينيون بنا خمنا تيري بنجون جانج فني دي آن دي نبدكو مراجع إضاءة الداجي جيخنا الحمد لله يا الله ما يجري li ci nekk ci mbaax yëpp yàlla boole ñu ci ñi nga xamante ne tàggat na seen i jëmm bañ mën koo taxawee ñi war a jàll ci beneen téere tey muy ruuxul adabi Mawlana Cheikh radiallahu anhu mën nañ wax ci lu gàtt rek ne ruuxul adab daal dafa mel ni mboolem téere yu suufiyanke yi taalif bu doon ay garab la mhm. benn meññet la génnee mooy ruux la mhm. ndax mboolem li tasaaroo ci seen téere yi mhm. boo ñëwee da fekk ne dajale na ko kon jàng ruuxul adab cëslaay bu màgg la ci yooni tasawuf yoon boobu nga xam ne lépp jubluwaayam lépp mooy xol yi sell ku mën a yegg ci yàlla mën koo jaamu jaamu boo xamante ne yàlla du fàddu ki koy jaamu ilmun bihi tasfiyatul bawaatini min kudraati nafsi bil mawaatini biha wusulu alabdi lil ixlaasi وروح العبادة بالاختصاص فذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعرف borom manzoom bi def ne xam tasawuf daal xam-xam la boo xamante Euh, nit ki ci lay jaar pour sellal baatinam mm-hmm. ci lépp loo xamante ne mm-hmm. ay nax-nax la mm-hmm. sellal bakkanam ni it noonu mooy xam-xam bi nga xamante ne ci lay jaam bi di jaar yegg ci sellal sellal bi nga xam ne mun nañu wax ne mooy ruuxu jaamu yàlla yi mooy loolu nag war na ci yooni tasawuf mm-hmm. yoon la boo xamante ne laaj na muarrif mm-hmm. lay mm-hmm. tegtal yoon comme ni mbooleem xam-xam yi laajee muarrif moo tax ku dem ba ne sufiyanke yi ñoo gën a kawe dayoo keneen ku dul ñoom ku ko wax am na ci cëslaay waaye sufiyanke dëgg-dëgg yi lay wax moo tax waa ji waxoon ne xujjatu man yurajjixu xujjatu suufiya على سواهم حجة قوية هم أتبع الناس لخير الناس من سائر الأنام والوناس أه، لا يكينا خمانتنا دال دفن مقام سفيان كينيو لنغ مقام نينن نيدو نيوم اه لول دي كولين توب مو داغا فك ني امنا نتي لاي بو دغر ناخ نيو بن توب نيت ني سنة يننتي بي تي مبولم نيت ني واخما سنة ياك مبولم تيغي نيغا خمانتني مي تي ñuy dem ci téere bi direct bàyyi wala cheikh mu ne taqulu عبد الإله بدرنا الوهاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد ما يقول دنا وخ إبراهيم إبراهيم إبراهيم وخ ما كان لولو أي درس درس منو كو جيخال ki taalif téere bi mhm, mhm. mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mhm. mi ngi judd ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ni nga xamante ne noonu la koy xale Mawlana Seydi gannaaw bindee ne mi ngi judd mille trois cent vingt bind ko leetar ne ko sama ati juddu يلا خم 1318 ليغا بند نا فكي تي ني وور خم خم غاكو جيلي بول كو افانسي واي نا غناو تاي بولي داغا بوغا بند سما تاريخ جودو لو وير لما سخال لي جيل 1318 mu tombé ak 1900 ci at tubab euh génn àddina. 1975. Mhm. Mhm. mu tombeeg ci gàddaay gi. 1395. Mhm. muy dund bu barke. 26 juillet. ak 15 rajab ci waxin. ndax Mouhamed Abdoulaye Seyd loolu saxal waaye. Cheikh Kabir Faye mi ne moo nekkoon foofu ak Imam Hassan. lim bind mooy ne bàyyi 16 rajab la génn àddina. mu ne mi ngi génn àddina midi moins 3. <laughs> ci bëccëg suré <laughs> wutal ma hablay lim wax na ma hablay xaja rajab rek la wax <laughs> ndax naan li sheikh ibrahim umr tarqu وقد تم بعام تغنم مجيئه وأوبه نصف رجب وفي النهار كل ذا يال العجب ما زاد يوما واحدا ولا نقص فلتنتهي يا باغي الخير الفرص من أتي الشيخ إبراهيم دال بنكرون خولتي numéro. Mhm. day toll ak quinze. Mhm. soixante-dix-sept. Mhm. Ah. buñ calculé woon tax na mu. dana fekk mu nekk mille trois cent quatre-vingt-quinze ci la gaañu. mu ne juddu na. ci xaaju rajab mhm. delluwaat ci xaaju rajab te ñaari yëpp ci digg bëccëg la ci bëccëg la judd mhm. ndax ba muy judd mhm. ci alxamis tàkkusaan la gaañu ba muy ba muy judd laay wax tàkkusaan alxamis la la la judd samedi bëccëg ci côté midi midi mooy trois comme ne ko paaka biir bindee comme ci bëccëg la mu ne kon loolu la dëgg dëgg kéem daan ci kon mooy ne Mawlana Cheikh Ibrahim mbiram mbiram lépp dafa leer mu jàng ut xam-xam euh, gannaaw gi yàlla suma rabbi atahu ma yasha loo xam ne nit sax mënu ko wax bàyyam mooy sëriñam moo ko jàngal moo ko xamal lépp bàyyam tamit amee na kawe ci loolu ngir diggale bi diggale Mawlana Cheikh Ibrahima ak mindee fii rawati moo tax Abdoulaye dinay wax sax ci sila silsila yi def ci bàyyi سيرين يمين يا خمان تاني جو هناي كل جازة مطعم بليج بايمنا أولهم أبوه عبد الله عقد به جيد العلا يباهي وهو الملقن له الطريقة وشيخه الظاهر في الحقيقة هو الإمام الكولخي العامل العالم البحر الخضم الكامل الولفي نسبا والجلفي في الدار مذ جاء جده العربي نسبا والولفي في الدار مذ جاء جده والجلفي قد فاق حلما وعلوما وصفا وأدبا مع النبي المصطفى لله در الحاج عبد الله ما أنجب ما أسعد ما أعلى انتماء الله قد خصه المولى بذي الأبوة وذي الوساطة وذي البنوة أجل وقد برز في علوم أجل وقد برز في الفهوم أجل وقد برز في الأذواق أجل وقد برز في الإنفاق أفنى جميع أفنى جميع عمره أفنى جميع العمر في الجهاد في ربه والنفع للعباد وحاز إحدى عشرة من السلاسل إلى شيخنا التجاني ذي العلا ومثله في العلم والورع قل وشبهه في الجد لم ترى المقال وهو آية وشمس للدين قد غروبت سنة شمس من سنين يرحنا مولانا شيخ إبراهيم سرين يمي كيش جيدو مع الحاج عبد الله يشي نيكو لجازال نخ لجازبي باي آية مو كو جوخ Euh, sëñ Mahamadou Tichiti comme uh-huh. ne ko boo gisee ne sama doom ji uh-huh. euh, nañ ko ànd ak ne alxaaji abdullahi xam na ne uh-huh. Cheikh Ibrahim mi soxlawul ijaazaay nit waaye borom nit ñi lijaazaal na ko ba pare te loolu bàyyi moo ko nettali boppam ci Kaashiful Ilbaas mu ne alxaaji abdullahi moom nag caq la boo xamante ne doq kawe moom lay tiitaru moo ko jox tariqa tijaan mhm. mooy sëriñam ci lu feeñ mhm. ci dëgg-dëgg mhm. te bàyyi wax na ko moom benn sëriñ la am mooy bàyyam moo ko jàngal moo ko jox tariqa mu ne alxaaji abdullahi moom nag mooy imaamu kawlax mooy borom xam-xam bi géeju ci xam-xam ba pare di jëfee lim xam ki nga xam ne arab la ci cosaan nekk olof ci dëkkuwaay Eh, cosaanoo jolof fii ci Sénégal ma mm-hmm. Abdullahi raw ci lewet mm-hmm. raw na ci xam-xam mm-hmm. raw ci teggin raw ci teggin ak yeneen tubaab raw ci sell kon nag dëgg-dëgg alxaaj Abdullahi moo moo baax moo kawe moo yëkkatiku moo tedd ba ko yàlla mu doon bàyyi di di doomam waaye ba ko yàlla jagleelee ci Mawlana muy bàyyi ci Mawlana Cheikh jiitu na ci xam-xamu yëg mm-hmm. jiitu na ci xam-xam ci dundale mm-hmm. jiitu na mm-hmm. ci xam-xam zahir ak baatin jiitu na ci dégg-dégg yi nga xamante ne baat yi ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi dundam ci xeex ngir yàlla ak jëriñ jaamu yàlla yi xeex ngir yàlla ak jëriñ jaamu yàlla yi géeju ci yooni Cheikh Tidiane ba am ci ay lijaasa yu kawe salaasir yoo xamante ne caralal ci Cheikh Tidiane yoo xam ne dem na ba toll fukk ak benn mu ne dëgg dëgg daal ku mel ni alxaaji Abdullahi ci ci ci xam-xam loolu bët mosu koo gis kon ci dëgg-dëgg moom kéemtaan la ci diine ji waaye jant la ci diine ji it moo tax gaañu na ci at bi nga xamante ne buñ ko nattee muy tolloo at jant kooku mooy sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim ko Cheikh Ibrahim bu doon wax mooy kooku bi nga xamante ne euh, buñ doon jël tuuti ci dundam bi rek duñ mujj jàngale darsi bi waaye loolu ay darsama ngi ñëw moo yaqulu ibrahim wala cheikh ibrahim xamle boppam njëkk ndax borom xam-xam yi nanguwuñ di jëlee solo ak xam-xam ci téere kuñ xamul ndax war ngaa xam ki ngay jël ki ngay jëlee xam-xam nii kan la inna hada al ilma diinun fanzuru am man taaxuduuna diinakum am man taaxudu diinakum xam-xam bi diine la أه، ورينا خالتي كان ين كوي جلي لين نجل الحاج يدومي كي اجما كان الحاج عبد الله يا خمنتني من بدرنا لو حاج موي سوني وير بولير الحاج عبد الله وير بولير لا أه، نخ مو ليرال كاولا خاك سالو ماك فيب كون نيكو وي كات بي واخي وان بها كاولا فضاءت وسين وسالم وضاء بها الاسلام وافتخر الجنس بسم الله خير جيب بوك ريون نكو من الحاج عبد الله سينك سالو ماك كاولا خيب ليرين تا ليرام باي واخنا تي موم لو بري محمد الله السيد نتيما قصيدة جدو جدو برفت خمنا لكم باي وخيتي ديجان تيم الحاج عبد الله وجان المطرب السامعين تلوكو تلوكو بند باباي وخنا نباي وخنا كنا كسام باي بقوم وكون جينا سام باي دواي دام كوفا كوي جور تجور الله من وقت كبير قصيدة يكون خم الحاج عبد الله ما يكون من والمرء بالاتباع يعرفه والفتاوي والبنين الصالحين وبالندي وتواتر العلماء والنقاد بالفضل العظيم الشامل المتمدد من نيت دال دا نكو خامي اي طالبين نيت يد دا نكو خامي اي بندم لم فتوى باي في دا نكو سي خامي نيت يد دا نكو خامي اي دومم دا نغي نيت كو باخ ñi xamee ci ne kii daal bàyyam ko baax la woon ak borom xam-xam yi wàcc këram waaye na mooy kan ndax lu gën a bëri nit ñu mel ni moom ñoo koy gën a seet si ba pare ak ñi nga xam ne ñi ngi tasaare mbaaxam ci fu nekk wax ci moom ba ne sax boo bëggee xoolal xaaj abdullahi xoolal doomam ji rek انظر إلى شيخ المشايخ نجله على من تفرد في المقام الأحمدي wax ci bàyyi wax yu rafet a rafet a rafet xoolal ci moo tax bàyyi ci boppam wax na sax ne man xaasa walidan lahu bi walidi ayna furuun ka furuuci walidi ma ne daal képp koo xam ne daal da ngaa toog rek bëgg a tëkkale sa baay ak sama baay man waxuma sama baay sama baay bu mu bokk ci combat bi nañ ma wan ku mel ni samay doomi baay banqaas yu mel ni yu sama baay génnee nañ ma mel yu nañ ma wan yu mel noonu tudd alxaaj abdullahi tudd ay doomam tàmbalee ko ci maam xalifa dem dem dem ba tàmbali ci muqaddama mi muy nit ku baax alxaaj abdullahi jàng ci baayam gannaaw baayam jàng na ci Maxtaar Fanjaay Baay wax na ko di wax ne wa axada naxwa min almuxtaari wa daa fi asrihi min al wa axada naxwa min almuxtaari wa daaka fi asrihi min al axyaari wal dimaam jël na naxaw ci Muxtaar Fanjaay te kooku nag ci niti jamonoom ci tànnee fi la bokk waaye mu ne Muxtaar Fanjaay dem na ba saxal alxaaji Abdullahi ne alxaaji Abdullahi ku raw la ndax ñëw na ci mokkari bi saamee ne da gannaaw bi mu ko jàngalee tafsir ba sootul ka fa lañ yeewalee daan na ëlbati ko di laaj alxaaji Abdullahi ay masala alxaaji Abdullahi ne ko noo may laajee te ma nekk sa taalibe mu ne ko man imaam Malik jàngee na ci ay sëriñam yoo xam ne ëlbatiku na jàngal leen mhm. xaay abdoulaye euh, noonu la amee woon xam-xam ba sax am na benn xasida ñëw na ci moto bi saameen yenn ci ay béyti mhm. ne Muxtaar Fanjaay daan na bëgg alxaaj abdoulaye delluwaat euh, ci moom mhm. waaye bàyyam moo ko maytoon digal te loolu bàyyi wax ko ci xasida bi ma wax léegi euh, من تيرهنا على رب ليل بت والناس حجعوا مدحت لعبد الله مدحا ممجدا ما مجود على موكنا ربك وبرنا قدي وخنا فنانكو آه، نيب دينا لو موم موي تاغال حاج عبد الله لا بس سيرين لا تاغ تما دون جانغال تاغ يرافا يو دانا خامني آه، لول لنين لا تيغا خامي ني اتيال حاج عبد الله آه، دينغ بامنا كان ني تي بير ألم ترى أنه أعطاه إلى أعطاه إلهه عطاء عطاء لا يكون محددا ألم لا وعبد الله خير ثم إذا أنجز الله عبد الله خيرا مؤيدا دو أنا دال سانغلا بما غيا نكو يالا نيال كو يو غير مقام ييغا خامتاني غيسون نكو تي موم ا غور غو مل نون نك تي ماغاي تي خام خام خامتاني بروم مطرب سامي نيك نا موم لو مات ñaar fukki weer at ak juróom-ñetti weer yoo xam ne mës a gis nit laaj alxaaji abdullahi masala ci xam-xam lu dul ne tontu na ko ci teewaay fan yëpp la xamul te bàyyi wax na ci ouverture école arabe ne sama bàyyi nee na ku réeree benn fànn mboolem fànn yi nga mujj réere te wax na ci moom ni mu amee woon ci boppam ne lu dul yii doo gis alxaaji abdullahi génn ci moom lim dëkk ak moom yëpp ak li nga xamante ne nit ñi nettali nañ ko mooy mu war a génn dem di julli julli mbooloo wala muy julli ajuma wala muy dem di teewee dëj wala muy dem ci toolam wala jotaay مدينة بوخامانتين منكو أوشو آه. من ليرك مودان تانغ جيس الحاج عبد الله يجين لدول لول من شير أي دومم من شي جانغال مباخ بينا خمنا بودل لو شي جلا أسطور دم فجيس اللي باي وقت مم بودل لو شي مطلب السامي كنا من خمسة جدنا 1964 مطمئن 1848 بنيا خمسة تاني نون لي جيني عدنا 1922 مطمئن

سيدين العالمين الناسكين السالكين لحضرة العلامة لكن من تي جنجو دجي الحاج عبد الله دجي الحاج مالك يا خمنتني بين مغنيون ان جابون ادنا بي بالاج راج عبد الله يغني ادنا الاج مالك يغني ادنا تي بين دفا جابون اد بوب لي ادنا لي توكي ndax nim di seewon euh waye yalla mom lu ne rek dana ci indi hotel bo xamanteni كي لا واي دال ليغي دينا ما محمد الله بن مصطفى العلوي من لين تالي قصيده ام بن في عام شمس الكسف الشمساني شمس التقى والعلم والعرفان مؤسسة طريقة التجاني وسنة المختار من عدنان عبد الإله والإمام مالك والأمر للإله وهو مالك تبين عبد رك لنياري من نياري جنتك ragal yàlla ak jant xam-xam ak jant euh, maarifa mm-hmm. ñoo ñoo suuxandoor ci benn at mm-hmm. ñi nga xam ne mm-hmm. ñoo fi sos dëgëral tariqa tijaaniya waaye ñi nga xamante ni ñoo fi yoonal sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëpp mun koo topp te duñ ci am benn tiitaange gis ko mu leer mooy alxaaji abdullahi ak imam mm, alxaaji malik si yi euh, nga xamante ne nag loolu yàlla ko def te comme mbir mbir ak yàlla la mu yàlla bu defee ñi xam yàlla duñ ci am benn jàmbat mooy ñaar ñu ñu euh, seen dund rafet ñu mm-hmm. seen dund barke mm-hmm. ñu daan demalante it mm-hmm. Euh, ba yàlla booy leen ñu bokk benn at biñ génn àddina ku neex mu ngaa dellu ci téere yi xool seen taarix Ibrahima mii wax nii nag doomi kóob la kon nga xam ne bàyyi ji jur na doomam na yaqulu Ibrahima najlul xaaji abdul ilaahi badrin al wahaaji weer la ndax leeral na diina bàyyi wax na ko ci seerul xal bi wax lim def ci moom wal walidi la zala fi lxuldi yuhmadu ci balaa inna hadi ardu taaha muhammadu ñaanal ko ndax li nga ko defal boo demee ba ci biir dana wax lu bëri جزا الله عبد الله خيرا فإنه هداني فشيطاني به لم ينل عز شيطان يم دال bu demee ba nga xam ne mënu koo yëngal loolu من كويس أنت الحاج عبد الله الله ما كتب جوني جو رضا الله عن شيخي وأصلي ومرشدي لقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا بغزو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وهو قد عاش صابرا نياني الله يلا قرمكو قرم سرينيم بايم أكيكو جبن دخ دندنا دندن بير دي تك نجابوتم أك xeex mm. bu laajee jàngale mu jàngale mm-hmm. bu laajee dem aji màkk pour wan leen ne mbir mi nii la mu def ko mm-hmm. bu laajee gàddaay sax mm-hmm. bàyyi fi dëkk dëkkuwaaye mii ngir rawale diinaam ak diinaay njabootam ak diina doomi jullit ñi mu def ko dund ci sant yàlla waaye dund ci muñ muñ bu kawe ndax boo liiree taarix nga xam ne muñ rek moo def loolu di ko sant euh, ci lim def ci moom bëgg yonent bi sallallahu alayhi جزا الله شيخا قادني لوداده جزاء كريم نعم شيخا ومرتضى تبدا dëgg بالله لو سرين بباخ لو كن قرم ما kuñ gërëm تي ngi بما sant pour ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax wax sax ci mom baye ne ma mbëggeelam yonent dal kim ci roy moy bayam xafawtu abi qasah wa huwa kabir sam sama bàyyi doon jànkuwante mbëggeeli yonent bi te bokku sam baye sax mag la deng ñaanal ko ci euh, yenn yenn ci xasida seen ah. xal bi ak ci dundam bi yëpp mhm. ndax ak ci dundam bi yëpp mhm. ndax alxaaji abdullahi lu def mhm. kon leer la boo xamante ne weer bu leer la ndax euh, weer daal mooy mandargaay leer njëriñu leer mooy nit ñi bu ñuy def xam li ñuy def nii lan la kon mooy ne alxaaji abdullahi leeral na diine ji ndax xamal na la ca baax ñu war koo def ak la nga xamante ne war nañ koo sonne ak li nga xamante ne war nañoo sonn bu bàyyi ko kon leeral na min baadi bismillahi mm. gannaaw bi xamante ne maa ngi tàmbalee ci mm-hmm. tudd yàlla mm-hmm. suma alhamdu xéwal yu màgg yi mm-hmm. eh, te kawe mi ngi boole na tudd yàlla ak yàlla yëpp ngir uutee bi ñëw ne hadis eh, bi dafa wax ne eh, mbir mu am daal تتامبالي وينكو تي سانت يالا ولا مير مو ام جيرين واخا تامبالي وينكو تي تود يالا مير موم دا فاي دوك تي باركي مو بولا ñaar yeb بولا بسم الله بولا الحمد لله ngir genn ci khilaf bo ñi wax mhm. motax mbir mi dajale na barke yoy yeb yi nga xamanteni ñing ko ci doon xaar من نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني من نصيحة لي لا يبير الله بني مني الى اخواني جمتي سماي مبوك خمغا نصيحه كم وصيه بني وهي وصيه موي دال واخ جو جوتال جو خمانتاني دا فاي ام جيختال واخ جو جوتال جو خمانتاني دا فاي ام جيختال ngir xirtal ki nga xamantene mom lañuy waxat ci def jëf ju rafet ta am njëriñ te li koy waral mooy bëgg ki nga xamante ne moom ngay laay béré uh-huh. ak yéene ko mbaax uh-huh. ak yéene ko kawe goo xamante ne war na koo am uh-huh. kon bàyyi bu ne nasihatun minni képp ku muy rek mooy ne lim lay wax nii lu baax la lu mu def ba gis njëriñam mu koy wax yéene la yow it nga jëriñoo ci mu kon lii laay biral la boo xamante ni mi ngi ci man jëm ci samay mbokk mbokk nag ñaar na mbokk deret baax bi baax waaye am beneen mbokkoo bi nga xamante ne du mbokk deret waaye mooy mbokku diina mm-hmm. mbokku diina mën naa xaaj mm-hmm. ay xaaj mm-hmm. mbokk diina gannaaw bu ngeen nekkee lislaam bokkee nekk ay julli rek yi ñëpp ay mbokk ngeen ndax li ne moom noonu exwatun bi dugg na ba pare waaye mbokkoo bi yeneen bi bokkale diggante muhajirin ak lansar loolu mbokkoo la bu jagoo waaye mbokkoo bi gën a jagoo mooy ñi nga xamante ne a bokk yoon bi di uti yàlla moo tax sufiyanke yi doon ànd tukki kenn ci ñoom yeewu gisut gisut gisut mbalaan bi mu doon sàngoo ne ana mbalaan bi ana sama mbalaan bi am ko ne ko xëy kon da jàpp ne yow da am mbalaan ñun dañoo am mbalaan beddeekul nga dem sa yooni bopp nga bàyyi ñu ndax ñun dañoo jàppoon ne ñun benn jëmm lañ te nit ki ngay ànd ak fekk demoo ba koy xoolee sa bëti kii mooy man maay moom ànd bi am na lu ci des dëgg la moom nag ñi dox ci yooni yàlla lay wax ak ak képp ku nekk jullit koo xamante ne bëgg nga lu baax rek mu ngi lay oo ci mbaax lii wala nasihatu minni ila ixwaani lum ci jublu mooy fal tumsiku tariqata tijaani نين جابو يوني مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه الشريف الحسني من خمنة ما ختم الولاية جدو مل مل سنة سنكان بعد جنجو مولد الختمي عام نقش تجلى سيدا طاهرا وهو ذكاء بوجل باتو مولد الختمي رك غكالكي لكو تي حرفي mu jox la at bi Cheikh Tidiane juddu boo génnee alif bi boobaa nag ñu ànd ak noxaat yi yi nga xamante ne noxaat yi wax ne wa qaala qawmun innaha laamu faqat il alifu lwasli mata tudraju saqat ne ne ne ne ne alatu taarifi comme ni ko borom mun xa waxee wa alatu taarifi al fa man yurid taarifa kabdin mubhamin qaala alkabid wa qaala qawmun innaha laamu faqat il alifu lwasli mata tudraju saqat سيبوي أمن خلاف دين تيمك خليل نخمن موي سرنيم ندخ معرفة ألف أعلام بير نيو كيدا ولا لام بير مو كيدا سيبويه نحن لام بير غلا ندخ واحد يبون كتوف تلو مو دم رك ألف بداية ورد دين عندك مو يشلو موليد الختمي كم ألف بليرة تونكو لام بلين لير بوكا كالكين موليد الختمي وبا مجهل أدب شيخ تياني جد شكرا مم جنجنا بابام Euh, moom it mooy nit ku màgg màgg màgg goo xam ne sëti mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ku dellu ci Hamziya baay bi mhm. doy na la commencement ci taarixam boo paree nga topp téere yu mag yi mhm. euh, dund at bu barke dund quatre-vingt waqad ataa kilalun fi umrihi sharafan waxtaaqa rabbi lahu wa rabbu qahaaru ñu ci benn ci xasidaami génn at bi nga xamante ne ñu bëri ci sufiyanke yi bàyyi rawatina ak ñeneen ñi ñu ngi koy ramzalee atu yashkuru buy firi dana sant dégg nga yashkuru amu cheikh na tijaani تاجئ للمعارف الرباني الآخذ الورد العظيم الشاني عن جده خير بني عدنان يقودنا به إلى الجنان كفالة عن سيد العدنان ينكر ابن كان تيوا موريتاني مي واخ لول من اتو يشكر دال موي ات بيغا خامتاني شيخنا تياني سي لا ген ادنا شيخ تياني مي خامتاني موي مبخناي ترانغا نيون معرفه نا خامتاني دلينا ويردو تي بايام يونس صلى الله عليه وسلم مام بيني أه، سي وماتي نيون نيب جيمي نيو تي الجنه تي كيغا خامتاني مي توك ليبر نيو دغور واي اي تران موتاخ من فلتمسكو طريقه التجاني نعين غور غور لجابو طريقة الشيخ تجاني تيري بين رومبو وخنا نجي أورادي نمكاي دفع تاكل تيجيني يبيب كم بيد أفلاي سونيو رك فري بوكو جلي فري مدام خال تيجيني نمكاي دفع نعم من طريقة محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان من يون لبو خمنتني دفع سيل لنجنير شيخ تجاني موكو من طريقنا طريق محض الفضل أعطاها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلي بلا واسطة يقظة لا مناما من سنيون بدال يوني من لا بسل خنا درا رخوتي ينمت بي موما كو جوخ مو جوغي تي موم نيو تي مان تا لول نك تي ايو لا نيكو تي اينلا بن واي دانا واخ واو غيس ينمت لي لا واخ يي ييب باي رك كوي ورانتي تي غيس ينمت دال خامنا غيسو نعم أقصر وعلي وغنى ورؤية النبي بالعيان أتت عن الصوفية العيان الجيلي والإمام الشاذلي وابن أبي جمرة للفضائل وجعلوها من كرامة من كرامات الولي وربما أنكرها المعتزلي والأخذ عنه ذكر الغزالي في منقذ الناس من الضلال جزينا نتشي أي بدال سيونا سوفيان جيسو في عنكي صلى الله عليه وسلم nee na ku ma gis man nga gis mm-hmm. ndax seytaane du jël sama melokaan mm-hmm. ku mel ni mm-hmm. ibnu abi jamra wax na ci layal ko dégg nga imaam Shaadili mu ne sax ñenn sufiyanke yi dem nañ ba yegg wax ne ci karaama wàlli la bokk ku mel ni Seydi Ali Alxawaas nee na benn wàlliw du mat dëgg-dëgg lu dul ne dem na bay dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa ci eew sax waxuma la ci ay nelaw mais nag am na ñu mel ni Mu'tazila mun nañ koo weddi waaye gis yonent bi sax ci gént jëlee ci moom xam-xam imaam al-Ghazali mi ngi saxal loolu ci téere munqidin al munqidu min ad-dalal boo demee boo ci delloo da nga ko gis wala Cheikh Tidiane la maa gis yonent bi mu jox ma tariqa bi te loolu nekkul ci ay nelaw kon tariqa bi tariqa ngëneel la da wax na ci benen waxam ne lépp lo xamantene wax na ko ci tariqa bi ci ay ngëneel buñ ko natte natteeg yi nga xamantene ne na ko dafay mel ni benn toq ci ci ci géej ben tok ci géej motax tax mu ne tariqa mahdul fadl war ridwan yon la bo xamantene dafa seen la ngëneel waaye yoon la boo xamante ne ku ci topp ni mu waree nga amee ci ngërmande yàlla te nag ngërmande yàlla moo gën a màgg leneen lu dul loolu laqad radiyallahu anil muminina ñi texe wa ridwanun min allahi akbar ñu ko am texe moo tax aussi sa bis sunnati wal furqaan ñi ngi ko ñi ko fondement yee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko fondement yee alquran ndax yow booy tàmbali يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توخون أن شرط كمالي لبوكو تعوذ بد أنت ليه البسملة فاتحة الكتاب خذ مفصلة dégg nga aoudu billahi min shaytan rajim te yàlla wax na ida qara'ta alquran fasta'iz billahi min shaytan rajim boo paree nga jàng fatihatul kitab yàlla wax na faqra'u ma tayassara min alquran boo paree nga jéggalu yàlla yàlla wax na faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara boo paree nga julli ci yonent bi yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima boo paree nga tudd la ilaha illa allah yàlla wax na yaa walladina adkuru allaha dhikran kathiran kon lépp lu ci nekk génnu tariqa moo tax bàyyi wax ne alaykum عليكم ولا فنن فما فيه ذكر الشيخ الأكبر أو ذكر غيره فنهج يناوي الذكر نهج شقائه رويدكم لا تنكروا عن جهالة لبغي وعدوان وعيني جفاء الله képp ku ko weddi daal da fekk ne dafa dafa bëgg a weddi rek waaye bu seetal xolam dana gis lu ci wér waaye dalil sax doy si na am na yoo xam ne boo leen joxoon junne dalil tamit du tax du tax loolu doy la te jàpp bi pour jubal nit ñi la rek ci yoon njub allahul sayd mi wax ci benn tariqa benn xasidaam boo xam ne radd la ci tontu ñi nga xamante ne dañuy dañuy linkaar tariqa tijaniya mi naan waalam بأن عرى الأوراد راشدة كلا ولم ينحها إلا الأولى سعيد وكلها برسول الله متصل رغم الألدا ومن عادى ومن عند ومن حسدوا وهي التي رسخ الدين القويم بها ومن يعبها انتحاه الزيغ والضمض ولا تعب مسلما لم يعتنق أبدا طريقة إن يسالم فهو مجتهد وقد توقف عما ليس يدركه ولم ينته ولم ينته هوى بالنكر أو وبد وصام طوعا وصلى واستقام ولم يعلق لسان له بالزور أو خلد هذا هو المسلم العادي وهو رضا ما دام عما سوى الإسلام يبتعد mu ne xamal ne buumu tarixa جبل daal يدق jubal ci misaal yu bëri ci lu romb te kenn du ko jublu lu dul ñi nga xamante ne dañoo texe ndax buum la yoo xamante ne benn cosaan la am mooy yonent bi sallallahu wa sallam ci yonent bi rek la jóg ànd ak torox tàngee bakkani noon yi ak ñi nga xamante ne dañoo ñaan te diina ji bëri na fu sax نجيتو طريقين نيوكا سخر كون نيك بو خولاي سي نيوم لوم ديف سي دينا جي داف لا يير ما وال حاج عبد الله رك نيو سي مصطفى سامي ان بلا موي ген ادنا طالب ميغا خامتاني جاب نان سي موم جاب سي طالب مي يغ نان سي تيميري جوني مل مولانا شيخ ابراهيم لقنت الاف لا يغلنت عدات نيو نيب سي اي جولي ني آه، بات الاسلام لا ينسى سي بنين ليتر مي وخني خمنا لو مات فوكي مليون يو خامتاني دغ سي طريقه تيجان سي سما بونتو مان اك ak ñeneen ñoo xamante ne mhm. toll nañ noonu mhm. balaa ñu dugg ci tariqa tijaan ñu bëri si ñoom ay yéeféer lañu woon ñii di jaamukati xërëm mhm. ak lim bu ëpp yooyu yëpp yoo xamante ne yegg ci yàlla dëgg-dëgg waxuma la yegg ak tegtal waaye yegg ci janoo te loolu lépp def na ko ci tariqa bi euh, te ku topp tariqa na nga xam ne dëgg-dëgg liggéey na ci tariqa bi mu ne képp koo xam ne dafay aybal tariqa yi nag dafa mel ni euh, euh, toroxtaange ak jeng moo jublu jëm jëm ci moom uh-huh. mooy nag yow mi bokk ci tariqa tijaan yow mi bokk ci tariqa bu nekk uh-huh. jullit boo xamante ni yaa ngi koy gis uh-huh. muy jaamu yàlla di oor di sellal di aj di joxe asakal bul ko ay baal ne jëlu tariqa bu dee mi ngi jàmmoog ñooñ tariqa yi te inkaaru leen ci lañ nekk taxaw ci li nga xam ne xamoo lii mbir la moo xam ne xaw ma ko ويديو مكو وايم لي دال لا غنا خم مو نيك سي جولي اور جام يالا واي مو نكو جولي لا واي جولي جولي سامبل لا ريك واي نك بودي ديف كو بوغا بوليك نك ني نيكون سي دغ ني نانغام اك نانغام ما اذا جال في الاراض متبعا اراء قوم هم الانذال والنقد وجد جهلا يعادي الاولياء وبها لنفسه البر والتوفيق يعتقد وظل يخبط في ظلماء حالكة من الغيوب متاعا قربه بعد وأمنه خطر والنور فيه دجن وكل وجه له من ربه رصد يقتاده للردى جهل تكنفه مركبا ورياء مهلك ودد هل تستريح منه فهو آدنه بحربه من له التدبير والعدد وينك فكينك fekkee nag وجل من ينبي أتلك بين اللي جاي utal ko benn liggéey mooy رجل اللي ñi nga xam topp ay gis-gisu ñoo xamante ne mm. ñu doye di lañ mm-hmm. ñu suufe lañ mm-hmm. xëy nag mm-hmm. jaar yooni lëndam bi nga xamante ne amul benn liggéey lu dul noonoo wàlliw yàlla yi ak di leen di xas di leen di saaga mu ne ko noppalul ci ay mbiram ndax koo nekkatul yow ak moom moom ak yàlla la subhaanahu wa yàlla lay xeex yàlla nag nee na képp koo xamante ne yaa ngi noonoo samay wàlliw maa ngi lay yëgal ne takk naa xare jëm ci yow mm-hmm. yàlla ku mu xeex ak nag mm-hmm. nga futi waaw mm-hmm. mënoo cee ndam mu ko moom noppalul ci ay mbiram bul kon yoon wi lenn la mooy pour yegg ci yàlla subhanahu wa taala yegg ci yàlla nag bu xasee ba jot dafay am yoon yoon yi dafa bëri yàlla ci boobu moo ne ut leen yow leen taqlaaw taw ilayhi alwasilati ragal leen yàlla ngeen sàkku wasila mhm. lu leen diggaleeg seen diggante ak sa borom mhm. jëf ju baax mhm. wasila la waaye ut ku la xamal tamit wasila la masalan ñu ne président nee na suba na ñëpp ñëw Dakar ku nekk na ut yoon est-ce que na ut yoon boobu rek dañ naan euh, comme doomi aadama ñaari tànk la am dox rek moo dagan kon avion koy affaire bi gën naa gaaw ku kuy dox. Mhm. bu mu tax mu ayibal ki éeg avion. Mhm. Ah, mbaam nga am éegal sa mbaam. Mhm. fas nga am éegal sa fas. ku am sa jakarta bismillah. ku am sa oto bismillah même bu amee oto sax da nga gis ku am Range Rover am ku am boo xam ne mun ta daw bi ba Dakar ci heure bu gàtt. kon yoon utal yoon jëm ci yàlla. jokkuwaay boobu noonu nag. tariqa yenn la ci. ba pare gën cee gaaw ci luñ luñ tajriba. moo tax mu ne. Euh, ussisa bi sunnati wal furqaani mhm. ñi ngi ko sosee sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mhm. boo ko toppee mhm. euh, wax nañ ko ci alquran ay dalilam boo toppee si istighfar jàngale nañ ko ci dars yi passé euh, euh, iblis ñëw ci xadis bu wér nee maa ngi gën ci sama gaay sa jaam yi li fekk seen ruux yi mi seen jëmm yi du dëñ di leen bewloo di leen mm-hmm. teggiloo yoon mm-hmm. yàlla ne ko maa ngi mi waat sama màggaay ak sama wegeel mm-hmm. ne li fekk ñu may jéggalu maa ngi leen di jéggal moo tax yonent bi ne bëri leen lu ngeen wax astafirullah ndax ni nga xamante ne safara noonu lay lakkee matt moom it noonu lay lakkee bàkkaar yi dégg nga tariqa bi ci loolu rek la lay omo من هو لازم نعم لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق ولازم من ينتقوك لازم ذي الطريق لازم بلا طريق ما هي من تدني كوليك من تشلو لك مريد بي طالب بي أمي تونو دق دق أمي تونو دق دق نخ باي وخونا سر الأكبر نه الصادق في طريقتنا من أراه الله الود اللازم أكبر الأسرار والشيخ عين السر فلا يتشوف فلا, فلا, فلا يتشوف للغيوب والغرائب ويستخف بالسر الحقيقي فإذا حصل الصدق يقطع المقامات وإذا حصل الصدق يقطع المقامات في أسرع مدة آه، من كده قدال تسنيون فيه mooy ki nga xamante ne yàlla wan na ko ne awraat tariqa bi mhm. mooy mbóot bi gën a mag mhm. te Cheikh Tidiane mooy jëmmi mbóot bi mhm. bu demee nag bu dem di xool yi nga xamante ne dafay kéemtaan nag dafay nangam boo ko defee nangam boo ko defee dugg ci suuf si boo ko defee nangam boo ko defee nangam ak su la ko defalee yooyu yëpp mu bàyyi ko mu def lii nga xamante ne lu leer la bañ a bañ a oyofal li diis bugg a diisal li nga xamante ne dafa dafa oyof mu ne nag bu demee ba yàlla may ko dëggu mhm. boobu noonu ñu soxla mhm. maqaama yi lim kawe kawe mhm. dana ko dagg ci diir bu gàtt te loolu dëggoom moo koy may yoon bi nga xamante ne ci la koy daggee dégg moo tax euh, ولازم لازمة لازمة للطريق آه. لازم انت وانا تقوه بذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تصلحه هنا جل طريقة برك دونه تنغي أمي بونفيس lu dul ne heure bu nekk yaa ngi koy yéemenal di ko def ni mu waree joxe ne cent la ko jëndee mhm. ñu ne ko boo ko jaayee da nga ci am deux cent mille mu ñëw jël si marchandise bi denc ko néegam mhm. jaayi ko wax gisul koy waxaale mhm. boo moytuwut cent mu ci defoon ci la ci munti wax mi ngi aju ci boo ko nga nekk ci jëmm yi tamit am na wàll ci affaire bi falasta fi axdi tariqi tarbaxu illa ida kunta dawaaman tuslixu مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المعتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة المطيعة من مكملا أجمة شروطه المقررة شرط يغا خمنتني من شرط الطريقة في نغمتالكو نعم، لكم مو yi nga xamante ne wujub لك مو xam yi nga xamante Euh, sixa la moo xam yi nga xamante ne shurutul kamaliya la ci jàngale woon nañ ko yëpp ci dars yi nga xamante ne passé na bu nekk ñu wax la ci wàllam mm-hmm. sëriñ bu am ndigal mu jox la ko yow nga am ndigal euh, euh, di ko def bañ koo bàyyi bëgg mm-hmm. Cheikh Tidiane bañ cee dellu gannaaw bañ koo mm-hmm. noono boo koy jàng tamit nga jàng ko ci at jàng ko ci laab lu mel ni jawaratul kamal nga xam ne mënoo ko jàng ci ci njàpp dégg nga booy jàng nga jublu xibla commencé a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wax bismillahi rahmaani rahim ak yooyu nga xamante ne jaar nañ ci charte yooyu yëpp nga matal ko nga xamante ne boo demee ci rimax Cheikh Omar Fouti tudd na ko ba àgg ci 23. ne ku matal lépp. kooku mooy taalibe tijaan bi ak bañ a yéexee wuddu bi ci lu ben benn ngànt am ci gëm-gëm te bañ koo te bañ koo jam am gëm-gëm ci sëriñ bañ koo jam mooy lu Cheikh Sukari waxoon الاعتقاد إن يكن حقيقي عند المريد سالك الطريق فلا يرى في شيخه ما ينكر ولو أتى ولو أتى له ما ولو أتى له بما ينفره والانتقاد منهج الضلال يفضي الى الخسار والوبال وان وانما التوفيق سر وضع في قلب من به من له الاله رفعه من دال غم غم بو ويري تي اب طالب دو غيس تي سيرنيام لو خامتاني داف كوي آه، داف كوي داف كوي داف كوي داولو وان لوكو غناو داخ بو امد رك لاي غيس mooy mm-hmm. nag ku ñëw pour euh, di di di di di di di pour jàmm rek mm-hmm. ak di ut ay ayib mm-hmm. boo moytu loolu rek lay gis mooy loolu yooni réer la euh, ku yàlla tawfiqal du la ko def ku yàlla bëgg tamit moo lay may nga gëm moo tax l'islam beeg lépp bu doon koo xamante ne dëlil rek la soxla boo moytu dana am yoo xamante ne du ci gis dëlil waaye gëm-gëm la yàlla buy def ci xol yi mu jàpp ci kon متى ولم شرتمي مكملا شروطه المقرره آه، آه، مكابدا ادابه المعتبره تجين ييغا خمانتني نيونا سي طريقه بي مو فخي كو متى لب آه، رافن جوتو سي يالا رافن جوتو سي جامو يالا سيدو ماي يالا تا باغنا اولو فخي يالا سي ليغا خمانتني موم لاكو يالا خير معظما لاهله جميعا آه. ما قال كيف كو خمانتاني دا بوكو تي آه، طريقه تجان رواتنا نيغا خمانتاني دا نيو جاغو نون موم ما قال جينا تي لاف لنن موي مو اغي تي ديغالين باي واخنا تي بن قصيده من ادب المريد ان يعظم من عظم الشيخ اذا ما قدم انا بوكو na ci téggéne talibé bi moy mu maggal képp koo xamante ni sëriñam دينا ومن تألم لتقديم سواه فهو في الحقيقة ما نال منى كذا تشوف إلى التقديم رذيلة تمنع عن التقديم آه، من آه، نكش طريقة نك سرون سرين سرين جيت الكيان من كو دم كو ورا مغل ده مغل كو ما مغل سرين واي سرين جيت الكيان kii mooy président daayira bi masala mhm. kii laa jiital ci liggéey nangam mhm. yow ngay mer mhm. mu ne loolu daal ku ku def ko amagut bëgg-bëgg mi ndax ko àggagut ci yaram ma ne tamit bëgg ñi jiital la loolu ci wàññeeku yi la bokk dana la tere sax ñi jiital la kon selbul iradati am na foo xamante ni taalibe bi da koo war a làmbaayoo da ko war a làmbaayoo متى؟ معظما لاهله جميعا لا سيما الخاصه المطيعه إذا شرعت في الذكار الورد فلازم الادب قدر الحد تادب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن من يبغى دمي بعك خمان تاني تامبلينغ ويردوي نعك تقوك تجين سكيم تلاقي كاتن ما يشرور كمال يندون وح toog jublu xibla bañ a yàq li ngay yuddu di ko jàng ci nank di teewlu maanaa yi ngir mu yeggale la ci ki nga xamante ni baat yi moom lay junj den إذا شرعت في ادكار الورد فلازم الأدب قدر الحد تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن من التجن في لفين ak ci lu nëbbu. Mhm. mooy buntu bi nga xamante ni maqaama yu kaw yi ci lay nit ki di jaar pour yegg ci. Mhm, mhm. maam Saxaru di nee na bu ñu wax ne. bu ñu waxee euh, doomi aadama. bu fexee ba yar la feeñ ci moom. yar la nëbbu ci moom. kooku mun nañoo àgg wax ne kii adib la. te bu ñu waxee adab nag. mooy daal jikko yu kawe yëpp nga lamboo Cheikh Hasan bu tey si dafay wax ne makaarimul axlaaqi tud'a al adaba al axdu biha wa qaala baadu al udaba taadimu man fawqaka man fawqaka wa rifqu bi man dunaka li adabi taarif al xasan aw il wuquf ma mastuxsina da mu ne jikko yu kawe yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bokk na ci jikko yu kawe yi nga may ku la xañ baal ku la tooñ dégg nga jokk ku la dagg mm-hmm. ak yu mel noonu mm-hmm. ku ko am mm-hmm. loolu la ñuy ooyee teggin buñ delloo ci euh, teggin ci udabaaw yi nag dana bëri euh, cosaan bi mooy firi oote mooy firi nangam nahnu fi lmujtaati nadul jafala alatal adiba min naa yantaqiroog yu bëri bëri yooyu du suñ moo bo waaye làmboo jikko yi kawee axlaaq alxamida loolu la ñuy wax teggin bu ko sufiyanke yi waxee nga xamante ne dafay dem ba feeñ ci sa wax feeñ ci sa jëf waaye feeñ feeñ ci sa jëmm ci lépp مفنج من أمن يوخنا نك تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك للأدب تعريف حسن من هذا التمر كوخنا دال تجين ما يكب كل ما نواتي أكو واتواي كب كناك سرون سرك غيرهم بو ما كوخنا تمر تجين لولا يفيد تمر لول تعريف برفل ولا صح أو الوقوف مع مس حسين lépp loo xamante ne lu ñu rafetal la mhm. ci déggéen rek mhm. nga nga nga nekk di nga nga taxaw ci pour sonnee ko mhm. bu ñu waxee ne tamit teggin loolu lay firi mu ne ba tey tamit loolu loolu loolu loolu loolu dégg-dégg bu rafet la boo xamante ne kenn euh, dégg-dégg bu rafet la boo xamante ne kenn du ko bañ wala sax wax ju rafet ak jëf ju rafet bu nga xam ne tamit loolu mooy teggin mm-hmm. loolu tamit euh, euh, déggin bu rafet na ba mm-hmm. tax bàyyi mu ne mm-hmm. tegginu ci lu feeñ ak ci lu nëbbu mooy buntu pour yéeg ci maqaama yi wastaxdara na cheikhaka al murabbi jàngoon nañ ko ne bokk na ci euh, bokk na ci lii matal wurdu mooy teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala teewlu sa sëriñ amin kamaalil wirdi dikrun bi xuduri tantafi anka wasaawisu lxurub li tantafi anka wasaawisu lxarub tashaxusun li surati nabi aw surati cheikh rida zaki دين من استحضر ان شيخك المربي تيول سيرن بين خونتني مولا جوخ تربيه تاو خون نان جيرني تيول بي لان لا موي دان لا يوبي تيغي يو خامتني نان كي بو في تيوان دوما دوما ديف ني أه، سما سيرن تيو بي تي ظاهر واي بروم سيرن بي مين في كون تي لا غنا ورا ما كذلك شيخه بدون ريب ولازم الحضور هناك نغا teew boo xamante ne teewu xol la mm-hmm. wa sukuuna na nga mm-hmm. taxoog dal boo xamante ne dal jëm la mm-hmm. kazaaka xalwatun ni ki noonu wéet wéet tuaynu dina jëriñ xëy nan yenn saay teewlu ndax jàngoon nañ ko ba tey ndax daanaka lu bari ci dars bi téere ba la passé euh, jàngoon nañ ko moo tax euh, jarul sori lool mooy ne zikar بكنا شيء شرط نعوم ما يكون يذكر متعول إمام الزرع جانغالينا نبنيو خير تعولو دار ما يمانا لين يذكر متعول سخر وارتسامه معاني الذكري في الخيال الذي يؤدي إلى تعظيم المذكور دائما باجي تعول comme ni ñu ko waxee woon keroog. Mhm. ba nga xam ne dana la yóbbee ci màggal ki nga xamante ne moom ngay tudd. mooy mhm. ndax. Mhm. tudd yàlla bu àndut ak teewlu. njëriñ bi bëriwut buñ ko nattee ci tudd yàlla ak teewlu waaye loolu bu mu tax nga bàyyi zikar ngir ñàkk teewlu. Ibn Ata'illah wax na mu ne bàyyi zikar ngir ñàkk teewlu loolu moo gën a màgg sax. zikar ak moo gën a màgg zikar te teewloo. te bokk na ci nangu zikar mooy teewlu. قبول قبول ذكر بالحضور الا تال ومن على النبي صلى الله فذكر الدين دونه يفيد عزاه للقدامس المفيد جان القران جان صلاه على النبي وخنا ني تيو اك نياك تيو ييب لوي نانغولا اندك ني جان اك تيو مو غنا مات مون تود يالا لاج نا تيو ميم بو مونتا تيو تامين نانغ تود يالا رك نخ الذكر على كل حال نافع تود يالا نوم مونتي نيك رك لوي جيرين لا موتاخ ولازم الحضور أن تقوب تيولوك خل والسكون أدل الجمو كذاك خلوة ويد ينسى نخ آه، ما نفع القلب ما نفع القلب شيء مثل الزين يدخل بها ميدان فكرة الإملاء طيلا من الدرجة يدخل lu mel ويد wéet wéet boo دنتي تدو يالا تغاني بوكو yàlla te gaañi bokk na ci mooy mooy teewlu borom xasida yaa man yuridu manazil al abdali min gayri qasdin minhu lil amali wax na ci ne gaa ñi séddale nañ seen yoon yi ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي gaañi daal li nga xamante ne dafa cosaanu ki bugg a eeg ci maqaama yi bugg ko am mooy war na di sax ci noppi gu bëri lu dul booree wax njëriñ wala moo war a tudd yàlla xiif boo xamante ne du yegg ci doyadil la ba nga xamante ne dootoo mën a jaamu yàlla mm-hmm. ak foog guddi boo xamante ne du nekk foog ngir mbuusal waaye foog ngir jaamu yàlla mm-hmm. kem li nga mënee nag mm-hmm. bokk da ñi nga xamante ne foog guddi balaa fajar nga nelaw tàbbi fajar ma ne yaa ngi bàyyi farata ngir loo xamante ne euh, dañ koo sopp ci yow di la ci xiir mu ne noonu wéet Mm-hmm. wéet boo xamante ne nit ki da ci jaamu yàlla mm-hmm. euh, te wéet moo gën ci ku nekk ku koo xamante ne mm-hmm. taalibe la soxla sëriñ mu jàngal ko wala sëriñ waaye taalibaam soxla ko mu jàngal leen ku dul ko rek wéet moo wéet moo gën ci yow moo tax waati zaalin daa ini <coughs> moo tax mu nekk daaka xalwatun tuinu xiina allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa